phosphate phosphate. amuñu phosphate. ICS. ICS maanaam mbooro. Mhm. phosphate. Mhm. Hmm? à un moment suñu fleuron économie si ICS la won mhm. dinaa ci ñew mais du phosphate rek mboro rek mo am phosphate. Ndendori Ndendori dans le département de Canel mais dafa am phosphate mais est-ce que xam nga fi wax ak yow dans la zone de. Eh, Kër Sambakan la commune de Kër Sambakan diggante Kër Sambakan Baba Garas. sama dëkk la voilà Kër Sambakan Baba Garas. Mhm, mhm. mais est ce que xam nga né phosphate ñu ko fay exploiter di fa jël. Té kenn yëgu ci dara te kenn yëgu ci dara Té doomu dëkk ba mhm, wuñu ko gis nga dama wax ak dama fa dem fan yele. di wax ak wa dëkk ba ñu naan ma waaw tali Baba Garas bi ñu ngi koy défar. Mané ne du tali Baba Garas bi lañuy défar pour exploitation phosphate bañuy def fofu motax ñuy défar tali Baba Garas. bi

moy desservir keur sambakan moy desservir refan moy desservir gawan moy desservir Touba Toul moy desservir euh ya énormément mm-hmm. Bambey Bambey ba ngay yoyep tali la bo xam dafa nek tali bu central ci Sénégal musuñu ko xalat mais biñu commencé di ropat phosphate bi jox ko ay indien ñukoy ropat ci lañ commencé ne dañ koy défar euh ngadjaga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 cette politique qu'on appelle la patte la politique d'accélération de la transformation technologique et économique du Sénégal nous dañ la wax at à partir de 2024 nous avons quatre unités industrielles légères budgétiser ko Né la xaalis bi lañ koy la si jigéen ñi nekk ci ay groupement ñu changer statut jóge ci ay groupement nekk ay société ak képp koo porteur de projet pour que zone bu ci commune bu ci nekk ci fois trois mille unités industrielles légères yoo xam ne dëkk bu ci nekk fay bay fay ci sa unité industrielle yooyu ñoom ñoo koy ngir liggéey bi mën a Sénégal noo mën comprendre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 mon cette vision mm-hmm. par rapport à l'industrialisation par rapport à l'agriculture on se rappelle encore du président de la République Max Sall bi essence bi euh, euh, lañ pourtant Mali a yëpp est-ce que réalité du pouvoir parce que ils ont des experts au palais ils ont des experts le gouvernement donc ils vont pas quand même je vois mal ñuy euh, euh intérêt du Sénégal plutôt mm-hmm. que autre chose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 changé changé ay lexam changé par contre nous nous les Sénégalais on continue de trinquer loo liggéeyulul sa bopp mënuloo am. Mm. donc y a pas de réalité du pouvoir xam nga li ma gëm man dañu amul ay nit on n'a pas de vrais patriote. Mm. wax la ko da nga ma phosphate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 danañu fa delloo société boo xam ne dafay transformer phosphate bi def ko engrais mais. yamul foofu de. man ça a un coût aussi loolu. mais mm-hmm. xaalis baa fi. Mm-hmm. mais bi ñu bëggee tabax jàmbaar. Mm-hmm. bi ñu bëggee tabax stade cent cinquante milliards dañu wuti xaalis bi. monte stade bi mën ngaa toog at wala ñaari at kenn du fa kenn du fa fubal. mais c'est des ce sont des bailleurs qui ont. justement il faut se départir de ces bailleurs. et dans ce livre moi je vous explique comment. nous départir de ces bailleurs. ki yaakaar yow sab ñaq.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 woo la yow état bu Sénégal né la or bi ñu fi génné won dé 400 kg mo fi nek mom nga ci am. et li ma la wax ni kenn du ko weddi c'est comme ça que ça se passe. kon li image bi ñu doon wax naan euh, un mendiant assis sur une mine d'or. ça devient toujours une réalité mais maam góor Sénégal mo ëpp alal France. Mhm. ñun ñoo ëpp alal France. ñun ñoo ëpp alal Italie. so jëlé li ñu am ci alal ci meññeef boo ko diviser par 10 Italie amul benn.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 wax bi sax li ñuy wax comme ñun li ñuy wax dafa bari ñu am société bo xam société tubab la bu ñew Sénégal li fi ëpp ci wax mom mo koy exploité et di ci am xaalis regarde les 500 sociétés africaines les plus cotées yi ëpp njariñ 500 sociétés africaines yi ëpp njariñ en juin dernier ñun sena Sonatel mo fi ëpp njariñ mhm. hmm? nee nañ Sonatel day def deux milliards ci bénéfice par an.